salaamaaleykum nuy nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant waaw comme d'habitude te képp koo xam ne nii abonné goo ci chaîne bi duñ def lu dul wax la nga abonné activé cloche bu ko defee benn suñuy vidéo dootu la rawati mais surtout ngeen di liker di commenter que partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax dañ leen indil la onze de départ bi nga xam ne tey jii ñoo nar a jàmmaarloog ki ñu naan euh, Bolivie démarré match bi titulaire yi euh, contre Bolivie match Sénégal gis nañu Alfred Gomis moom moo ne ci camp yi euh, Kalidou Koulibaly moom moo taxaw ci ak central mook Abdou ñu bëri nag yaakaaroon ne seen i jéem moom mooy taxaw ci camp yi waaye finalement Alfred Gomis moo nekk euh, ki ñu naan Koulibaly Abdou Diallo père bi moo nekk ci ak central bi euh, Fodé Ballo-Touré Moustapha Nam euh, mën naa ñoo ne ci ñaari flanc yi kii flanc droite kii flanc gauche Pathé Cissé Pape Gueye ak Pape Matar ñoo nekk ci milieu mu doon trois jeunes yoo xam ne Aliou mu ngi leen di bu baax a baax Sadio Mané Krépin Diatta ak Boulaye Dia ñoo ñoo ne ci kaw Sadio Mané ci benn flanc bi Krépin ci beneen flanc bi Boulaye Cissé fas yéene na ko teg tey ñoom ñu titulaire euh, contre ki ñu naan Bolivie ci match préparation euh, coupe du monde Qatar bii di ñëw match amical la ñu ngi xaar euh, résultat yi nu mu war a mën a demee leen xaar gars yi ci commentaire yi nan ngeen gisee onze de yi képp koo xam ne ni abonné ko ci chaîne bi nga abonné activé cloche bu ko defee benn suñu vidéo doot la rawati mais surtout ngeen di liker di commenter que partager ba beneen yoon ci yeneen xibaar